tawi ajjuma ji nu génn ak jéyee naka noonu musiba yi mu àndal vox populi ne bilan bi ci bakkan yi ci rot gën na diis léegi ñett ñu faatu la ndax su weesoo Alexandre Gomis mi ñàkk bakkanam ci tunnel bi ci corniche bi ñaar ñeneen ñàkk nañ ci seen bakkan muy benn borom puus-puus ca fa janook gendarmerie front de terre mu ndox mi yóbbaale keneen nit ku fiilu kurang yi maas vox populi ñëwaat ci xayma gi ministre bi ñu dénk nag wàllum ndox mi ak cetal doon amal moom Serigne Mbaye Thiam ginnaaw tournée ci nguur gi ak dogal yi mu jël naata ngoom yore wàllu infrastructure Mansour Faye xamle ne ay barrière dinañ ko def ci ngir su taw amee jéye nar a am ñu daal di yëkkati yooyu barrière tëj tunnel yi Senelec moom dogal bu mag bi mu jël ngir moytu jéye wala wàññi ko bu baax mooy couper courant bi ci gox yi ndox mi nangu bu baax source aane keroog àjjuma kilifteefal sapeur pompier ñoo sàkku ci këru gi fu ci mel ni zone de captage Zac Mbao ak Wakaam ñu couper ko ndax bañ courant bi jàpp fa kenn samedi deux heures du matin la ñu indiwaat foofee yépp courant bi le vrai journal moom gis ne ndakaaru ci boppam moo aawlu ci géeju problème la tëmb moom capital bu Sénégal grand place ba tey ci biir ndox mi bakkan yu rot plan Orsec bu nu déclenché terewul Ousmane Sonko ci grand place ne lépp mu ngi tukkee ci yorin wu lalu ci tëlle ak yi kàcc la tribune moom la mu bëgg xam mooy ana audit yi fi président Sall diggee woon ñeel plan décennal waame gi plan Orsec ak ONAS jaar ONAS moomee dund nag lu yéeme ci diwaanu Thiès ak jëfi ñu kenn mënul wutali tur ñuy saboté doon jëli saaku suuf di ko def ci canal yi war a jàllale ndox yi ñu jàngee ko ci grand place wàllu politique direct news dafa laaj lu ñeel kiy jiite ji assemblée nationale ëllëg diggante Amadou ak Mimi yéene kaay bi ne Mimi Touré am na avantage yu ci mel ni nekkoon tête de liste Benno Bokk Yaakaar bokkit ci militant yu njëkk yi waaye laago bi nu ko gisal mooy réeroo ak waa wàllu ci mbiri Karim xalaat bi mu am ci mbiri troisième mandat Amadou Ba yéene bi ne moom ko mën a waxtaan la ak wàll ya ci politique ndax ba fii xamuluñ ko benn réeroo ak mbootaay yi ñu war a séqal assemblée waaye laaj beneen bi yéene kaay bi def mooy Pape Diop ndax mënuta doon ñetteelu kilifa gi jiite ji penc mi le quotidien mel ni ku jey tontu ci naan Pape Diop koy ci xiini miin la ne ndax waaye yeew bi ñu ngi koy fexee mépp dem ba di ko proposé toogu président assemblée assemblée nationale Pape Diop nag su dee moo ne ci xiini mii ni masa président Macky Sall ak fi mbiri toll l'info ne ak ndamal Benno Bokk Yaakaar gi nga xam ne àndul ak génn ci wotey palug député yi ak dellu ginnaaw politique la ci parti bi fareeg nguur gi mu mel ni ci gis-gisu yéenekaay bi la dese président Sall mooy xaajale ngir gën a a jiitu wutal Ousmane Sonko ab wala ay wujji politique ci mel ni sër xalaat ci géew bi Karim Wade wala Khalifa Ababacar Sall mën ngir ne kott a dem dem bu rafet la moom président la mu bëgg mooy dammate déggoo bi am diggante wàllu ak yeewi xëcc wàllu ci weti bennoo docteur Cheikh Oumar Anne mel ni kuy tontu ci vox publique ca naan intercoalition bi moom yeewi wàllu tas na bu noppi docteur Anne gis ne abstention bi APR waaye PDS ñooy ñi ëpp li nu gañe ci wote yu nu génn aji mbeex gaan kanute bu benno bokk yaakaar ba tey yéenekaay bi di vox populi ne ñoom seen ak mbootaay coxor gi lañu war a tegaat ci suuf ci président ñi ko mën a gañeel aji mbeex gaan jàpp ne la leen soowe may leen nag bokk na ci gi président Sall àll bi delloo ko njukkal président ak champion bi mu doon lamb ji ndax bëreeti ne champion démb de ñaari mbëri la ñu wane wanewu ko donte sunu lamb gis na ni Balla gay 2 relancé wu na bàyyi Gris Bordeaux ca pax ma yéene kaay bi ne gaynde géejawaay gi xàll na yoonam jëm ci Boy Niang ak Eumeu ci sunu làmb ba tey guy gi di ci wax mbégte mu am ci Balla gay 2 Xaadim Njaay moom gis ne Gris Bordeaux dafa ñëwoon ak 90 pour cent xeex source aané moo waral Balla suul ko waaye moom it Balla Gaye 2 le quotidien la mu jàpp ne bu desee sànni tàccu du lu bari